député yii di Massata Samb ak Mamadou Niang ba sub bi nag lañ doon jàkkaarloog àttekat bi fële ca tribunal bu dakaar euh, mbir moomu nekk nag seen digg seen naataango boobu di Amy Ndiaye Gniby euh, euh, li nga xam ne nag kon moom mooy verdict boobu la procès dañ koo dàq ba jëmmi jamono. tey nag fële ca yi mbir mu doy waar lañ fa fekk ab waay daal ñu ne koo xam ne sax xale góor mu war toll ci ay fanweeri at lañ fekk kon ñu faat ko. sànni ko ci wëtu li nga xam ne moom mooy euh, bassin de rétention bi nekk wëtu poste Thiaro ñu ne sax nañ ko faate anam yi la ndax sax ñi ko gis daal nee nañ kon dañ ko euh, rendi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa police ak waa police scientifique kon ak waa sapeur pompier demoon nañ kon foofu la nga xam ne fa mbir ma euh, xewe Guy Marius Sagna ak Aminata Touré nag eh, ñaari député yooyu ñoom nag dañoo bëgg ñu indi leen ay leeral ci mbirum rapport Cour des comptes boobu nga xam ne dañ koo génne ci nañu yore woon koppar ya eh, yi nga xam ne kon moom lañ doon xeexee jàngoroy coronavirus gannaaw rapport bi nga xam ne nag dafa génn daal eh, wane ne am na ay doxalin yu jaarul yoon yu amuloon yu amoon kon si yooyu la koppar tax na ba ñaari député yooyu jóg daal saisir li nga xam ne moom mooy assemblée nationale ci li ñuy woowee ab question d' actualité. ngir ñu indi leen ci kon ay leeral xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleeg euh, Burkina façon foofu nag ñaari solda ak lu toll ci six civil ñoom lañ fa faat euh, samedi bi ñu génn ci ñaari attaques yoo xam ne na kon mu ngi am foofule ca noor ak ca est bu euh, dëkk ba bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa AFP ca Afrique du Sud nag. li nga xam ne moom mooy parti au pouvoir bi ñoom nag dañoo falaat kii di Cyril Ramaphosa kon mu jiite bile parti yooyu ñu ne loolu sax dina tax ba kon dina am chance nekkaat njiitu réew ma bu dee nag boobule parti moom moo gagné élection générale yi war a am ci deux mille vingt quatre xibaar sport lañ koy jeexale démb nag Argentine moo dóor France ci finalu coupe du monde mille vingt deux ba doon xew fële ca Qatar gannaaw match boo xam ne nag match bu neexoon la euh, bëri woon it ay bettange loolu boobule match jeexee ci 3-3 ci temps réglementaire bi biñ demee nag série de penalty ñii di waa Argentine dugal 4 kon waa France dugal 2 Lionel Messi nag nekk koo xam ne amoon na taxawaay bu am solo. ci boobu boobule match euh, ba sax kon jël na li nga xam ne moom mooy coupe du monde bi ko dese woon ci palmarèsam attaquant français bii di Karim Benzema ba su tey bi nag dafa xam xamle ne kon euh, dakkal na carrière footballam ak lii di équipe bu France ci ab message boo xam ne kon ci Twitter daal la ko publier mu ne moom nag def na la mu waroon def euh, daal def na la mu waroon def kon jàpp nañ fi mu nekk nii kon diggam ak euh, kon lii di équipe France euh, jeex na moom la attaqué bi attaquant bi nga xam ne sax kon bésu tey bii euh, lay féete 35 am loolu la ñu tey ci xibaaru seen teewlu jox daje ëllëg yaa ngeen